asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen euh, di leen jéggulu itam ci gëj a def ay vidéo ndax jamono yi paase dëkk bi dafa xawoon doy waar torop torop torop ci wàllum crypto monnaie yi ci société yi nga xam ne dañ ci doon liggéey bon yàlla dogal tey ñu jàpp ne war nañ mën a def benn vidéo jéem a motiver nit ñi euh, am itam ay njàngat yoo xam ne dinañ ko def ci liggéey bi ndax biñ ci nekkee ba léegi muy bëgg a yàgg jafe-jafe yi bëri nañ ci euh, difficulté yi bëri na mu mel ne am na ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg dellu ginnaaw daw bàyyi euh, ma bëgg a xaaj vidéo bi tey ci ay njàngat yoo xam ne Euh, képp ku seetaan vidéo bi boo paree ci lii di nga xoolaat sa bopp bu baax a baax en tout cas loolu laa si jublu bu fekkoon da nga doon daw nga yokk ko xam ne àdduna noonu lay demee d'accord premier point bu ñuy aborder mooy lu mel ni Imperial Solution bi fi nekkoon di di liggéey ak ñun yàlla dogal ak Onwar Capital relex société yooyu nga xam ne dañ fi nekkoon ñu amoon ci ñoom confiance ñu dugal ci suñu xaalis société yooyu dem yóbbaale xaalis bi muy benn deuxième point bu may aborder ak yéen mooy société yi nga xam ne maa ngi leen commencé di présenté fii ci suma chaine bi maanaam euh, muy ñetti société yi benn bu nekk lan moo tax ma dugal ko fii lan laa si jublu euh, lan laa si yéene itam doomu aadama yi jëriñu ci ñetteel bi euh, ma indil leen rek <laughs> loo xamante ne tey ñu bëri buñ ko seetaanee dina leen jaaxal mooy euh, video boo xam ne dañ ko defoon en 2013 benn américain defoon ko doon ci wax nit ñi ñëw leen ngeen jënd bitcoin bon dama yem foofu ba ñu ku bëgg a xam daal en tout cas euh, vidéo bi 2013 lañ ko defoon ku ko bëgg a xam da ngay seetaan vidéo ba mu yegg mais bon damay commencer ci euh, lu mel ne Impero Solution Impero Solution société la boo xam ne dañ ko enregistré woon ci gouvernement wu ci surtout gouvernement wu Canada d'ailleurs tey boo demee tey génnee nañ ko ci ñi ñu ci lekk seen xaalis ay canadiens lekk nañ ci seen xaalis ay africain ay européen kon liñ ci lekk ci xaalisu nit bari na comme li ci jëriñu ci doomu aadama itam bari na mais dama yaakaar ne ak ku mu mënti ki doon tey ci Sénégal soo toogoon nga dem ci gouvernement surtout gouvernement wu Sénégal nga fekk ñu def fa benn société société boobu bu ñëwee di laaj ay investissement ne la mën nga fi investir doo am benn xel ñaar mais bon lan moo nekk si ginnaaw ndax ay diil la woon loolu moom wax dëgg yàlla mënuma ci tontu li ma xam daal ba xam mooy société bi dem na yóbbaale na ñun ñëpp suñu xaalis donc euh, côté boobu ñu xam ko mais am na benn point bu ma bëgg a leeral mooy lan site yi nga xam ne dañ koy def fii di ko publier képp koo xam ne da nga ciy seetaan ngay seetaan ci site yi war nga mën a xam lenn. société yi nekkuñ fi extérieur lañ nekk dañu nekk di liggéey yow aussi boo ñëwee da ngay liggéey da ngay wut loo am boo ci dugal sa xaalis dugal ci loo xam ne boo ko pertee doo leb doo jël xaalisu jàmbur dugal ci en chaque fois ma ma ma répété loolu bref donc euh, bëgg naa nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax baax a baax loolu daf may yóbbu ma ñëw ci ñetti société yi nga xamante ne euh, dama leen dugal fii di leen présenter du ma wax société bii moo gën bii wala bii moo gën bee wala bii moo gën a baax bee wala déet mais dama leen di wax concept bi kenn ku nekk si yéen am na liberté dem mu dugaat ci biir vidéo yi daf ay recherche mu xool mbokk yi fii ci Sénégal néew na boroom xam-xam boo xamante ne danga mën a defar maanaam benn oto nga nekk dakaar walla nga nekk Tamba wala nga nekk Kolda nga mën a dem ba foofu ci dëkk boobu nga xam ne foofu nga dëkk nga taxaw woo nit ñi ñu dajaloo nga ne leen man de mën naa defar oto mais aw ma xaalis dajale leen seen xaalis ngeen jox ma ma defar oto su ma paree yóbbu leen yéen ñëpp xam ngeen ne loolu amul fii ci suñu réew yi amuñu culture boobu ñun amuñu culture boobu lan lañu am culture pour def mooy bëgg nga defar oto yow yaay jënd sa lépp nga ñëw defar jaay bëgg nga am boutique yow yaay defar lépp nga dem defar commencé di jaay bëgg nga bey yow yaay wutal sa bopp euh, sa jiw yow yaay wutal sa bopp lépp bëgg nga ay jur maanaam poulailler bëgg nga dem ganaar ganaar di jaay yow yaay dem louer local bi jënd say ganaar teg foofu di jaay su perte amee yow la concerné bu gañe amee yow yaay gañe donc ñun loolu la ñu xam traditionnellement daanaka noonu la xam dem na ba nga xam ne léegi sénégalais koo woo di ko expliquer lii wala lee dafay yaakaar ne est-ce que danga may nax wala nangam nangam nangam di xalaat xalaat yoo xamante ne xalaat yooyu xalaat yu yu yu yàgg la vraiment donc àdduna bi tey fan la toll il faut nit ñi ñu bëree bëri dañuy dugg ci internet bi xool seen li ñuy xool rek mooy lu leen neex waaw ay ay fecc ay sketch ay reetaan affaire yooyu mbokk yi àdduna bi àdduna bi dafa passé foofu franchement parle dafa passé foofu ñetti société yi ñetti société yoo xam ne bokkuñu benn bu nekk ak société boppam la benn bu nekk ak ay nit yu nekk si bopp si ginnaawam société bii depuis nekkoon na fi 2017 Etherconnect bi bu njëkk BitConnect la tuddoon dañu ko tëjoon gouvernement yi ñoom ñoo ko tëjoon puis sa jamono yooyu dañ doon xeex crypto monnaie yi dem nañ ba léegi am nañ seen këyit ñu ñëwaat commencé waat liggéey d'accord su fekkee bëgg nga ci xam dangay ngay cliquer ci video bi nga dem seetaan mais nga jël juste tour bi nga dem xool yaa am pagaay ay vidéo yu nekk ci biir internet di nga ci xam dara Daisy Global bi aussi la même chose man société bi jour bu muy ubbi bu muy commencé ubbi au niveau mondial jour boobu laa ci enregistré ku ko bëgg xam demal nga xool nga dugg ci biir internet wala boo ma xo boo boo ma defee signe tamit mën naa la ci wax li ma xam euh, user bi tamit user bi la la même chose DT Socialisé ñetti société yi seen concept rek laa leen di wax nu muy demee ñoom ñett ñëpp dafa am fu ñu daje te loolu boo ko doon wër ci suñu réew yi doo ko gis mais heureusement que ñoom tubaab yi dañu wala li des ci àdduna bi yeneen continent yi dañ dafa am côté yoo xam ne dañ ci xereñ mooy lan da ngay yor xam-xam mais yoruloo xaalis man yor naa xaalis mais awma xam-xam man ak yow ñu associé Etherconnect bi lan lay liggéeyak yow mooy lan dafa am tokenu boppam bu muy jaay boo xam ne da ngay ñëw nga jënd ko stocké ko bàyyi ko foofu pendant un an doo ko laal token yooyu bu mu la koy jaay ñaar dërëm lay jar su demee ba nga xam ne mat na un an bu jaree cent franc sax soo ga soo ko jaayee dangay ngay donc loolu ci damay expliquer ci manière boo xam ne sénégalais lambda bi war na mën a comprendre loolu lii jamono yi ñu toll nii boo doon xayma li muy jar jamono yii boo doon xayma Etherconnect bi benn Etherconnect lu muy jar matul deux cent cinquante franc CFA motu ko matul deux cent cinquante franc CFA te ñoom bi ñu indi woon bi nga xam ne moom lañ njëkkoon def te état yi tëjoon ko puisque amuñu woon kayit yu valable demoon na ba benn Etherconnect di jar trois cent cinquante mille franc CFA wala lu ko jege donc imaginez-vous ku ko jëndoon ci jamono yi muy jar deux cent cinquante trois cent mais boo ko indee ci suñu réew yi nit ñi dañ naan la lii ay affaire franc la ay affaire de lii la ay affaire de laa la gars yi affaire bi demeewul noonu waxuma encore ne dana mel na bon ñu ñëpp kenn ku nekk si ñun da dem di investir mais ñaata la ñuy investir xaalis muy yàqu ci yeneen domaine ñaata yoon du jeex du xaaj du jeex du xaaj suñu calculer woon li doon jaar ci suñu loxo ci xaalis muy yàqu ci ay projet mais kenn du fi toog di wax d'accord dési bi la même chose noonu la xaw a mel moom aussi ay scientifique lañ ñoo xamante ne yàlla may na leen xam-xam ñu tëgg seen projet ne ñun cinq cent millions de dollars moom la ñu soxla pour dajale ko pour defar li ñuy wax. Hmm, intelligence artificielle tey am na ñoo xamante ne bu ñu duggee ci benn usine du liggéey bu njëkk seeni loxo la ñuy liggéey mais dem nañ tey ba nga xam ne ay machine ñooy liggéey loolu ci côté kii la est-ce que xam ngeen ne européens yi ñu ngi ñu ngi pare ay oto yoo xamante ne nit sax daanaka du ko dawal daanaka yomb na avion yi ñuy dugg tey di di di di di di di di tukki daanaka pilote yi lan lañ ciy def pilote yi nga xam ne ñoom ñoo yore avion bi daanaka lan lañ ciy def yéegal ak wàccee li ci des yëpp daanaka pilote automatique moo koy def mais ñii dañu dañoo dañuy nekk ci beneen secteur boo xam ne secteur boobu moom moo gën a moom moo gën a aussi euh, doy waar mooy intelligence artificielle maanaam am na ñoo xam ne ci crypto monnaie yi wala si bourse yi pour nga dem liggéey foofu dangay am pour jënd ak jaay mais loolu ak xelu doomu aadama léeg nga bëgg jënd ngay hésiter léeg nga bëgg jaay fii ngay hésiter ñoom ñu créer intelligence artificielle boo xam ne moom mooy nekk place nit ki di ci liggéey man depuis mois de janvier maa ngi ci société bi ba fii ñu toll nii mu ngi dox d'accord cinq cent million de dollars lañ soxla woon pour dajale nga xool àdduna bi yëpp Afrique rek moo ci des ginnaaw ci côté boobu c'est-à-dire laaju ñu la lu dul cent dollars cent dollars la laaj nga génnee ko jox leen cinquante dollars yi dem ñoom ci seen euh, liggéey boobu ñu jëm cinquante dollars yi nekkal la fa di dafa liggéeyal à partir de vingt dollars nga mën a retirer sa xaalis dis-toi que yow une fois nga retirer deux fois wala trois fois yow daanaka sa xaalis récupérer nga lépp ci cent dollars yi te amatul non seulement da ngay am action ci société bi mais dangay am foofu xaalis boo xam ne daf lay tradel su la neexee nga ne tout les trois mois wala tous le six mois wala du wala wala un an bu nekk damay ñëw ma retirer suma xaalis te yow loolu lépp benn cent dollar kese nga participer foofu su la neexee nga wax ko comme man ni may def mais su la neexee aussi nga bàyyi noonu ngay jël sa xaalis mais soo ko waxee africain yi encore lan lañ lay wax mooy loolu mais bon dinaa ñëw lu tax tey ma indi discours bi bay tudd africain yi ci lii puisque dañuy préférer man société yi balaa may balaa may publier fii ay ay ay euh, impéro solution société yi maa ngi fi mais danga koy wax ay sénégalais dañ duñu sax comprendre société bii nii li ma ci wax du bëri mooy du diiti socialise société bi ku ci bëgg a am xam lu la leer baal sa xel rek user bi ku ci bëgg a am lu la leer calculeel rek ci jamonoy élection américain yi passé Donald Trump nga xam ne moom euh, waa Facebook dañoo tëjoon kontam waa Twitter tëj kontam nanguñu woon mu def benn publicité publicité ku ci bëgg xam dara ci société bi demal ci jamono yooyu boo xoolee vidéo yooyu di nga gis ñu ci tudd société bi moom aussi euh, képp koo xam ne yàlla dimbal na la nga mën a dugg ci internet def ay recherche boo ci defee recherche di nga xam ne te c'est à partir de vingt euros vingt euros vingt cinq dollars maximum CFA nga xam ne ay dix sept mille francs la kan moo la wax ne boo ci dugalee lool tey ci deux mille vingt et un bii deux mille vingt cinq du la jaral du du la jural un million wala deux million wala cinq million wala cent millions kan moo la ko wax dangeen yaakaar ne mënul nekk ñu bëri dañuy ree naan loolu mënul nekk d'accord loolu moom moo tax tey ma def vidéo bi xool leen waa ji ngeen xool vidéo bi ñu ngi ko publier le 9 mai 2013 le 9 mai 2013 la ñu publier vidéo bi waa ji jamono yooyu lan la doon publier lan la doon def ci vidéo am mooy def doon wax ne ñëw leen ngeen jënd benn bitcoin benn bitcoin mu ngi jar un lay jar benn bitcoin mu ngi jar un euro loolu lay jar waa ji moom loolu la doon wax jamono yooyu benn bitcoin mu ngi jar un euro tey ñu xool ñu xool tey benn benn benn benn benn bitcoin ñaata lay jar tey hmm? dañu xool rek benn bitcoin tey tey tey actuellement fii ñu toll nii nga xam ne tey moo ñoo ñoo ngi ci deux mille deux mille vingt et un dañuy xool rek benn bitcoin ñaata lay jar. lu doon jar 2013 1 euro la doon jar 2013 waa tey normalement war nañu mën bu ñu xoolee benn bitcoin lan lay jar tey xanaa suñ ko comparé ñaari prix yooyu war nañoo mën a xam ndax jëndoon ko jamono yooyu baax na walla baaxul suñu suñ suñu defee loolu war nañ ko mën a xam benn bitcoin tey tey tey mu ngi jar trente six mille actuellement nii may def vidéo bi benn bitcoin mu ngi jar trent six mille cent quatre vingt dix huit euros euh, dollar kon trente six mille dollars d'accord léegi ñu calculer ko damay def rek cinq cent du ma du ma egg feneen cinq cent rek laay def nga multi ma multiplier ko multiplier par cinq cent rek laay def multiplier par multiplier par trente six mille trente mille cent quatre vingt dix huit lii ñaata la cinq cent francs rek laa def waaw benn cinq cent franc moom laa def xool leen lii ñaata la ci CFA waaw pour ñu mu leerul cinq cent franc laa def moo nekk nii multiplier multiplier par trente six mille baal ma def trente six mille kese trente six mille moo nekk noonu mu nekk ñaata lii ñaata la ku mën a wax 2013 kan si moo génnee woon cinq cent francs wala mille francs investir ko ci benn domaine boo xam ne tey ci jamono yi ñuy wax jural na la lii ci xaalis jamono yi muy def vidéo bii di wax ñaata nit ñoo ko toppoon bariwul moom si boppam defal def na benn interview boo leen ko xoolee ngeen gis nii 2013 ngeen xool ko tey fu mu nekk d'accord ngeen xool ko tey fu mu nekk ak 2013 bi muy def vidéo bi est-ce que ñaari nit ñi seen dundin benn la woon wala de vidéo bi ñu ngi ko defee ci jet privé am la nekk di def vidéo bi kii en 2013 moom moo doon def moom moo doon publier naan dem leen ngeen jënd benn bitcoin mu ngi jar un dollar ci jamono yooyu ci 2013 9 mai 9 mai 2013 benn bitcoin un dollar la doon jar tey moom moo nekk nii ci jet privé di dem moom si boppam ci témoignage bi moom moo waxal boppam jamono yooyu ay dizaine de personnes ñoom ñoo ma toppoon ci idée bi ñoom ñoo demoon jënd ay bitcoin mu ne ñaari nit may nañ ma comme cadeau kenn ku nekk may na ma cent bitcoin kenn ku nekk jox na ma cadeau cent bitcoin léegi boo xoolee moom si boppam lii dix-huit millions nga multiplier ko par cent mu nekk ñaata cent quatre-vingts millions multiplier par deux loo xamante ne ñaari nit ñoom ñoo ko jox 2013 ñun ñii ci lan lañ nekkoon fii lañ nekkoon di liggéey mais jamono yooyu ku ñu waxoon bitcoin nga ni déedéet jamono yooyu ku ñu waxoon bitcoin nga ni déedéet duma ci dugub wóorul nangam nangam sooy dugg ci internet ngay yëngatu ci domaine yi ngay gis lii ay nit di ko def booy bi kii ngeen gis nii kii xale bu ndaw la seen YouTube la nekk dem ba mën a ànd ak kii ñu dugg ci seen jet privé di dem ñun fii Sénégal fii lu dul joueurs yeeg yenn yenn yenn doomu aadama yi ñan ñoo fi ñan ñoo fi am opportunité yooyu puisque ñun ñëpp dañuy toog di xaar lan état dañuy togg di xaar état yi duñ ñu mës a développer fu ñu jëm. jamais au plus grand jamais duñu ko def puisque mënuñu ko du seen rôle kenn ku nekk ci domaine bi nga nekk yow yaay fexe nu mu avancé nga dem li ay opportunité la waxuma leen encore une fois garanti wu ma waxuma ne en cent pour cent dafay dem mais opportunité la disons ñetti sociétés yi yëpp pour que benn Sénégalais dugg ci dula la coûter trois cent mille te c'est pas forcé nga dugg ci tey tey tey yu cher bi bii vingt dollars la commencé Daisy cinquante cent dollars la commencé Ether Connect cinquante dollars la commencé matul deux cent dollars ñeen ñetti sociétés yi que yow nga toog ne xaaral ma dugg ci ñetti sociétés yi essayer qui sait xëy na fii ak deux ans trois ans cinq ans mën nga xëy benn bis ñaar yëpp bañ a aboutir mais benn bi aboutir benn bi bañ a aboutir ñaar yëpp aboutir wala ñetti yëpp ñu sotti ñu dem même bu nga dugal ci même pas cent cinquante mille wala deux cent mille nga xool d'ici cinq ans wala dix ans même bu la juralee deux millions wala trois millions est-ce que tu que ne boo jëloon boo boo jëloon cent cinquante mille wala deux cent mille yooyu ngay dugal ci ñetti projet yi yaakaar nga ne boo ko dugalee ci leneen dina la jural dina la jural lu toll noonu lii laa leen bëggoon indil tey pour wax leen ne leen euh, man en tout cas su may gis ñun suñu réew yi ak réewu tubaab yi nu ñuy doxalee te lii euh, daf may jaaxal daf may jaaxal pour ma dellu si ci société yi société yi ak ñetti société yi ma leen présenté ça n'a rien à dafa ñëw ne moom man plateforme de trading laa yor dugalal nangam ma lay liggéeyal soo trade la même chose Eleven la la même chose mais sociétés yi ñetti société yi dañu ñëw ne ñun dañu yor suñu projet <coughs> yow yow yaa yor sa xaalis su fekkee ne wóolu nga ma dugalal sa xaalis si projet bi ñu xool comme yow jàppale nga ma tey man aussi bu subaa am naa yéene jàppale la. société yi noonu lay demee donc euh, lii moo nekkoon tey vidéo bi vraiment euh, ñi nga xam ne aussi dañu perte seen xaalis ci plateforme yi puisque du impéro rek li ci li li fi dem ci plateforme depuis le 19 mai dafa bëri te plateforme yooyu yëpp ay trading lañ doon def gis ngeen ne bitcoin bi sute na plateforme yu bëri ci lañ jaaree dem tey tubaab yu bëri ñun ni ñuy duggee ci plateforme trading yi la plupart tubaab yi duñ ci duggee noonu la plupart duñ ci duggee noonu mais ñun aussi euh, mën naa ko comprendre puisque suñu am-am demeewul noonu mais nag ku yaakaar ne danga nga bëgg a dugg ci domaine bi dugg ci nga xalaat ne bu ma fi yàlla bàyyee fi ak deux ans trois ans mais boo yaakaaree ne benn weer ñaari weer nga am fi mooy loolu ah wax dëgg yàlla yombul donc. Euh, tey lool la loolu laa leen indiloon tey waaw di leen baalu ak aussi bu fekkee ne li ma wax am na nañu mu naxari li ma si jublu rek mooy nit ñi surtout jeunes yi ñu xam ne euh, kii bu gëmul woon li mu doon def 2013 su ko gëmul woon kon tey du yegg si fii mais def ko gëmoon moo tax muy ñëw ba tollu fii yow aussi amaana boo duggee ci benn ci société bi société yi bul jaar ci sama lien amul problème demal nga xooli lien wu tubaab nga jaar ci inscrire investir ce qui est l'essentiel mooy na am ay sénégalais yu ci am bu fekkee ne français yi ñu ngi ci am euh, américains yi ñu ngi ci am canadiens yi ñu ngi ci am mais na am benn sénégalais mu mel ne comme final bi passé Chelsea bu mu jëlee ndam li ñun ñëpp ah bu ñu xoolee dinañ gis suñu bopp si loolu puisque au moins am na benn sénégalais bu nekk foofu donc man foofu laay waxee yéen aussi ñun ñëpp ñu jàppalante liggéey vraiment euh, maa ngi jéglu ci guddaayu vidéo bi lii rek laa ci bëggoon a jàllale incha allah ba beneen yoon jaa ngeen jëf